bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi bu ngeen gisee image yooyu di ngeen xam ne ñu ngi fii ci xolu ndakaaru waaye itam xam ngeen ne rek suñu programme bi ñu jagleel koor gi mu yóbbalu koor mu ngi topp tànku borom xam-xam yi nekk ci biir Sénégal ñu àggale seen message ci askan wi. fekk fii koo xam ne symbole la ci culture arabo islamique ci Sénégal yàgg naa di ko wax waaye itam symbole la ci li yàlla wax ne. falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fi ddin wa liyundiroo qawmahum ida rajacuu ilayhim laallahum yaxdaroon kooku moo di oustaz Ismaïla Deme di représentant bu ligue islamique ci Afrique de l'Ouest ñu am mbégte nag war a toog ak moom fii ci yóbbalu gi mu indil ñu yóbbal bi nga xam ne mu ngi koy jëmale askan wi kon oustaz Ismaïl ginnaaw bi ñu la tatagalee ci euh, Walfajri waaye itam ñu am mbégte fekk fii ci kër gi ñu bàyyi la rek ak askan wi nga àggale sa message ci euh, l'occasion kor gi nga xam ne dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah alxaaj Xasan euh, Diouf maa ngi lay nuyu bu baax di la wax dalal jàmm marhaban wa ahlan wa sahlan ci sa këru buuru tukulóor yi di wax ne xëy na euh, bul ragal dara ndogu maa ngi di la xaar eh, di kontaan ci initiative bi ngeen jël jëlaat encore ndax wal Walfadjri télévision initiative la loolu lañ ko xamee eh, di kontaan trop di la yóbbante nuyoo suñu rakk suñu xarit alxaaj Sidi lamin ak mbooloom ñi nga xam ne ñooy liggéey ci Walfadjri di leen ndokkeel ci weeru koor wi di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla barkeel seen liggéey di nuyu ñi àndal équipe di nga àndal di wax ne euh, wax dëgg yàlla message bu ñu war a sànni ci occasion koor gi weer wu tedd wi mooy ndokkeel umma bi ndokkeel su kilifa diine yi ci lu amul xaj ak seen ndokkeel jàngalekat yi ndokkeel euh, aima yi ndax ci la ñu bokk a bokk ndax ñu ngay jiite ay nit ak duaat yi nga xam ne ñooy woote ci yoon yàlla ñoom ñëpp di liggéey di tasaari xam-xam di yee nit ñi di leen digal lu baax di leen tere lu bon comme ni ko yàlla digle loolu mooy seen mission ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru koor bi Eh, di wax ne eh, bett ngeen ma bettil bu baax eh, ndax weeru koor weeru yërmande la weeru njëggal la weeru mucc ci safara la kon weeru jaamu yàlla wu ñu nangu la muy loo xam ne yàlla moo ñu ko jagleel gis ngeen yàlla sàkkul doomu aadama pour mbugal ko looloo tax mu defal ko ay xéewal yu bari bu góorgóorlu rek dina mucc mbugalu yàlla te yàlla amul lu mu ñuy mbugale bu fekkee ne ñun gëm nañu te di ko sant di ko jaamu loolu la wax ci alxuraan eh, bu ko defee weer wi mu ñëw mu nekk weer wu tedd mu am guddi goo xam ne boo koy lim mooy laylatul qadri guddi goo xam ne moo gën ci ay ngëneelam rek boo ko taxawoo moo gën juróom fukki at ak lu topp ku wax jàmm nag ci Sénégal war ko dëgëral ndax barki démb rek ci ndaje bi fi amoon ci ligue des oulémas et prêcheurs imam de des pays du Sahel nga xam ne ñoo nekk ci Afrique imam yi ak wootekat yi yeekat yi jàngalekat yi ñoom ñoo fi ñëwoon di daje eh, bi ñu dajee di wax ci valeur yi nga xam ne moom mooy dëkkandoo dëkkandoo li mu laaj bi ma biñ ma joxee kàddu gi dama joxe Sénégal comme modèle te loolu jar naa fàttali ci weeru koor li tax ñu nekk modèle boo xam ne ci cohabitation pacifique addina bi yëpp ñu ngi ñuy joxoñ di ñu wax jar naa sàmm jar naa toppatoo jar naa dégg nga eh, jàngat ndax génération yi ñëw loolu kon kuy wax cohabitation pacifique ci Ramadan eh, defe naa ne ci occasion bu am solo la Sénégal ni mu bindoo jàmm rek moo fi xëj wax naa leen ñun am nañu ay askan yu bari ñii ngi sant lii ñii sant lële ñii ngi nekk di eh, cosaan cosaan yi askan yi ñii nekk lële ñii nekk ay jullit ñii nekk ay chrétien waaye won naa leen ne gis nga ci mbaaxu Sénégal yi am nañ fi président chrétien boo xam ne yore na réew mi vingt ans yoon naa leen ci taayu silmi buñ koy wax ci ramadan ci dafa bokk ci yaatuk Sénégal jullit nit ki muñam te bu ñuy wax yaatu ak muñ ci weeru koor vraiment war nañ ko fàttali bu baax parce que weeru muñ la weeru yaatu la gis nga lépp dafa nekk loo xam ne dafay nekk luy indi jàmm te gis nga jàmm bu ñu am nii bu ñu ko xeeb mais nañ ko suuxat di ko toppatoo jàmm nag dañ koy sàmm niñ koy sàmme mooy ci kàddu ak ci jëf muy lu am solo rawatina ci weeru koor xam nga yonent bu ne man lam yada qawla zuguri wala amale bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharabahu ku bàyyiwul guddal salaam yi rek di wax lu neex di sos di saaga di xaste defe ne danga nga woor fekk yow amoo sa koor gi lu dul xiif ak mar loolu yàlla nañ ci yàlla kon gis ngeen diine lislaam dañu war di fàttali man message bi may lancé mooy diine ji diine jàmm la yonent bi yonente yërmande la nañu jàmmoo loolu lañu yàlla bu buggal ndax diina joo xam ne kat buur bila la sàkk jàmm la tudde boppam asalaamul muminul muhayminul azizul jabbaarul mutakabbir kon war nañoo wuti jàmm diina joo xam ne koy nuyu da koy wax asalaamu aleykum yàlla jàmm ne ko waaye nag nit mun naa wax mun naa nekk di am diiney jàmm te jëfinam ak waxam du indi jàmm loolu nañ ci bàyyi xel loolu laa bëgg a bàyyi loo xel sama bopp maa ci jiitu bàyyi loo xel nit ñi am nañu ay valeur yoo xam ne ñeneen ñi dañu ko ñëwee bala nga koy xam nag nga génn walla nga jokkoog ñeneen ñi kon loolu jar naa ñaan yàlla tabaraka wa taala ci weeru tedd wi yàlla téyel ñu ko dëgëral ko bu baax a baax a baax a defal ñu li nga xam ne moo baax ci umma bi beneen tomb bi mooy nañu góorgóorlu bàyyi wax yi bari yi te liggéey nañ bàyyi wax yu bari man defe naa ne démocratie démocratie Euh, boo moytuwul li ci politicien tubaab yi waxoon rek moo am boo moytuwul euh, boo moytuwul duñ jëmee fenn daal te def ñoo war a jëmee fenn waaw daf ñoo wara jëme jëmee fenn daf ñoo démocratie bu àndul liggéey démocratie bu àndul ak jàmm démocratie bu àndul ak maandute démocratie démocratie bu àndul ak wormaalante loolu du du yëfu du du jullit du yëfu gor loolu tam bokk na ci li nga xam ne war nañ ko euh, fàttali suñu bopp fàttali ko mbokk yi li ci des mooy li ñu may chance il faut que ñu wax ko ndax euh, dañuy wax sëriñ yi mais souvent dañuy fàtte ne ñoom sëriñ suñu mbo suñu suñu kilifa diine yi dañu sonn dañ leen di war a ñaanal di leen jàppale ndax li ñuy daj ci askan wi ci wàllu social léeg nit ñi dañuy foog ne li ñuy ama ko ëpp waaye kenn ku nekk ci yoom li nga yenu li nga moo ëpp li nga àttan kon nag euh, te ñu ngi koy def ci social bi ñu ngi ñaan yàlla loolu euh, yàlla def ci barke euh, ñoom tam dañ ay régulateurs sociaux lañu bu ko defee ramadan bi ñu ñu ciy dégg seeni kaddu lu am solo la ñu ci parce que euh, ñu ciy dégg seen kàddu ndax ñoom ay duaat lañu ay borom xam-xam lañu ay waaraatekat lañu bugguma tudd kenn mais am na ñoo xam ne ñu ñu jiitu ci suñu waajur yooyu ci kenn koo xam ne daawul noppi mu ngi wax rek waxam ba léegi bu génnee dangay ngay defe ne tey la kon yàlla na yàlla fayal ñu leen kilifa boo xam ne dañ koy déglu warul noppi waxtu événement xewee rek yàlla nag baaxe nañu wax dëgg yàlla euh, ci Sénégal nañu xam ne responsable bu ne yàlla dina ko laaj sa responsabilité yonent bi moo wax yàlla wax na wax ko ci alquran inna allaha yaamurukum an turaddu l amanati ila ahliha mais amaana bi gën a foor mooy lan amaanatul xukmi ah amaanatul xukmi amaanatu tawalli umur al muslimin ñi nga xam ne ñoo ñuy atte surtout nañu ci jëflante seen jëflante ak nit ñi seen jëflante ak askan wi ni ñuy séddalee alalu réew mi nu ñu koy utiliser nañu gën a ŋànk réew mi gën a toppatoo maslaa réew mi parce que réew mi moom rek lañu am moom rek la am kon euh, loolu xaw ma dégg nañ am dégguñu ma mais loolu bokk na ci li nga xamee ne moo war a mooy li nga xam ne moo ñuy dimbale ëllëg ñiy jot nguur gi di àtte nit ñi di gere cité bi nañ ko gérer nu neex yàlla ndax bu ëllëgee yàlla dana leen ko laaj ci ramadan bi lañ nekk bu ëllëgee yàlla dana ko laaj ñu ngi julli ñu ngi woor ñu ngi def lu baax ñu ngi jaale ji nit ñi ñu ngi defar teraanga yi ñu ngi defar ndogu yi ñu ngi def lu ne waaye loolu yëpp yàlla am na lu ko jiitu li ko jiitu mooy doxal maandute ci kaw suuf en tant que dirigeant doxal maandute ci kaw suuf yërëm nit ñi jàppale réew mi alal ji ñu séddaloo ko dañ ko war a séddalee ñu teg ay sart yu wóor et di ko doxal waaye e masamba ma demba diw diw e loolu dafay indi e texalew texaloo texalee nit ñi ci seen biir tey tamit du nekk luy jëriñ askan bi nañu góorgóorlu ci daara yi nañu góorgóorlu ci jàngale bi nañu góorgóorlu ci niveau bi loolu tam bokkoon na ci li mu bëgg profité ci ci occasion bi pour dénk ko sama bopp dénk ko sama mbokk yi di leen gërëm di sant euh, encore une fois Serigne Sidi di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla dëgëral taxawaayam di la sant yow Xasan ci vraiment euh, wal fajiri moom suñu wal fajiri la yàlla na yàlla mm, kattal leen may leen doole di sant ñi nga àndal ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal euh, ramadan mubarak euh, al imam euh, Ismaïla Deme ñu lay sant bu baax a baax di la gërëm ci message bi nga xam ne jëmale nga ko ci askan wi waaye itam mu concerné bépp couche bu nekk ci askan wi moo xam jeunesse bi la ñu war a gën a góorgóorlu ci wàllu liggéey moo xam itam borom xam-xam yi yëngatu ci wàllu diine ji la ñu gën war a gën a def seen liggéey te mu ànd ak efficacité moo xam ndongo yi toll ci jàngale itam ñoom ñuy seet bu baax a baax nu ñuy jàngee waaye itam ñu war a corriger war suñu bopp. loolu yëpp ñëw na ci waxtaan wi mu nekk waxtaan wu am solo euh, ñu lay sant di lay euh, gërëm di euh, gërëm ñi nga xam ne àndoon nañu ak ñoom Mami Kanté ak kii di Massaer ñu sant leen gërëm leen sant ñu ko monté ak ñi ko jàllale ci réseau bi. ñu leen di jox beneen dox daje ci seen émission bi di yóbbalu koor wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.